te dugal ko ci boutique dugal ma fu la neex dugal ci boutique bi. jug càq. jug càq la boo. jug càq jug càq. maa ngi soog a xam li nekk njaayam boutique pour nga mën ko foog nga am fula te nekk petit yenn saa nga leb ma bañ ba noppi def ko ay kaf li nga bëgg maa ko am te xaw ma sax lu muy saf jàpp njaax ak sa koppati wengal ko tingom gone gu tuut dog sa lees ndax dërëmu si ngom ku bëgg xam lu xew si koñ bi sax yow la koy laaj mais li ma ñor mooy jaay kaani soble ak laaj xam naa ni réew mi ndoolu na xiif la muusi di ñeew fi li fi gën a jar guddi mooy mbiskit ak meew dépense su këram la nattee ñëw di ma tayle oram leb ma ceeb diwli nag tamaata ñaan ma xorom bijou moom bay xoy wen yi lay paccal atanuma ko na yéen laay jaar ma sàngal Simon fii la jaar conseil yokkal ma ko daf ma léegi daf ma yokkal ko moo ko moo ko warga suba su ne raag bu tar la ma jinax yi posonu mbóot reyaale unku ak si ndax yi ak sil butigu laay gis nga niñ ko riimee mukk mukk doo fu jaar gis ci lu périmé saa su ne nga gis ku gàddu mburu ñëw di wër bër gis ko man di jaay la rek laaj la joor eh, duñ ko nangu doo ñëw di jàkkaarloog suñu gaan eh. eh, nit ku nekk dañ ko yàppal ndakam nam na ci benn anam bañ mu xajam da xam gën bu génnee ndakam <laughs> waaw yow you wanna excuse me is in my uh, baby. Wow, you wow. want to send man and what is mom? Wow. You want to skin I said from back up. Yeah. You want to gonna have to know let's out up. Yo, you want to say back out up. You want to say papa papa chapra. Oh oh oh oh oh. You want to say back out up. Right. Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate. ay joxu na kay. ay joxu na kay. ay daan. suñ sant ba xaw nañu ne xaaral dara. kaama tegal la kaama tegal la kaay kaay. non parce que waaw.